génne fii ba parler bu sonn. ñu dugg. bu ragal bu ragal bu ragal. saa yi ndax après ko benn yoon rek. mooy gën quoi. waaw après ici il fera la déclaration à l'école Liberté 5. incha allah. kii moom ñëwul. Bougane ñëwul. Ba Ba. waaw yéen foog ngeen moom la ñu naan ñëw. ñëwul la. après ici la déclaration se fera tout de suite à l'école Liberté 5. dégg nga courant dégg nga léegi nii la koy def école Liberté 5 une partie de des SICAP fait partie tout simplement de Mermoz Sacré-Cœur Mermoz Sacré-Cœur Gracias. allo waaw waaw Mansour ah bien fan bi kii woowu ñëw fan bi taalu ma fan ko dafa nañu xaar mu ngi jéem wala ñu taal ko léegi xaar ma taal waaw